ginnaaw bu ñu ko santee gërëm ko ñaanal ko suñu borom gën koo dëgëral di nuyu ñëpp nag di fàttali ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha bis bu tedd bi ñu jubli moo war a jataay bii di màggalu Tuubaa màggalu Tuubaa nag li ñuy wax aniyun aniyun ani taarif ñëpp ko xam kon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 dem ba nga xam ne liñ bëggoon a jëmbat ci lislaam mooy ñëpp nekk ay occidental ci xalaat ñu def li ñuy wax tahrib ñu def leen ko nga xam ne daray lislaam dootu fi amati ca la suñ borom feeñale sëriñ Touba mu ñëw ci mujjug jamono ndax lislaam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 ñii ne 18 wala 19 dig digal boobu daal ndax ci li gën a siiw sëriñ bi tàmbalee di ko màggal ñaari at wala door a santaane ne na ko ñëpp di def ba ci at mu juba nag sëriñ bi di waajal nattu yi nag suñu borom xamal ko ne nattu yi jeex na ak pay ci nattu yi nag ne ni ni nattu yi nag pay gi nag ne nattu yi daan toll rek ni la ni pay gi di moom saa su wax waxtu accès mboolem nu natt yi daa toll xéewal yu ñu toll noonu lay demee loolu nag jàpp naa ne ñëpp xawoon nañ ko seen bopp kon nag loolu rek mooy bis bi nga xam ne moom la ñu woote kon li ci ëpp solo rek mooy gën a farluwaat takkaat suñuy laxasaay te gën a toppaat ci ginnaaw Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi Serigne Touba am na Serigne képp ku mu fi teg rek mate na sëkk jataay bi loolu dafa bokk ci lim fàggu ci biir ab liggéeyam moom mii nag yàlla dafa def muy jëmm joo xam ne ñëpp a ko xam sax tolloon naa nag doomu aadama la Sëriñ Tuubaa waxoon rek lu yàlla mayut rasul lu yàlla mayut boppam mayu ko rasulullahi sallallahu alayhi wasallam du ko may kenn mooy woote ak dëgg ñëpp fekk si la ca waaye liyahlika man halaka an bayina wa yaxya man xayya an bayina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 waaye séeréwuñ soxlawuñ nit ñi xam ko ndax la Sëriñ Tuubaa daa wax rek bu leen sonn ci sàkku gërëmul bindee fi ndax riddal naa si xaayatul laa tuddal kenn mënta am gërëmul bindee yi te ko ci sonnoon ba am koy du la jariñ dara kon nag da ngeen fexe ba sonn ci sàkku ngërëmul yàlla mi borom bindee fi ndax bu leen gërëmee kat nit ñi gërëm leen te duñ ko sañ bañ moom foofu la nekk li muy def defu ko ngir bëgg ko ko tagg ngir wala bëgg ko ko wax li muy def lépp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 mboolem liñ bëgg danañ koom te mboolem luñ ragal danañ ci mucc te xam ne it yoonu rek li ñu gën a dimbale mooy ay am kilifa yu kilifa moo tax yoon wi ak si yu mat tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo fi njëkk wóotu Serigne Touba xam ngeen ne tombé woon naa jamono yu metti bu amutoon dogo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 nit ñi di laqatu ci biir kër yi di ko def kon loolu doy na ma ci sëkk sëriñ Saliou Mbacké itam dégg ngeen ba tàyyi muy Cheikh Abdou Khadir Mbacké noonu foo ko Cheikh Abdou Lahad Mbacké bàyyoon mu wóyal ko bi sëriñ Saliou dikkee dégg ngeen fàttali ngoon ba tàyyi bis xëy jël na décision bu mag wax ne rajo yi nañ leen génne corniche bi te loolu xalaat yu sori la ci amoon xëy na gisit ne banques yi nañ leen génne cotisation loolu ay giseen yu xool la ci amoon yoo xam ne neexatu wax ci rajo ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke it bi mu fi nekkee noonu la daa def wéy ca fa ko sëriñ Saar yu bàyyi woon yeesalaat tere yi sàmmoon dëgg ak Cheikh Sidi Moukhtar it bi mu ñëwee noonu la ko wéyale armeel yu bees yi fàttaliku ñaan bi mu xëy joxe dégg ne bu ñu fa dencati kenn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 ndax alxuraan digle tere lu ci ne dafa am ay xudut walam yajus baxsun anil la sittatam fi thawbihi aw fi dukaanihi naam aw fi yadayhi aw bidaarihi maa bal kullu za kaana xaraaman munia tere buñ ko dee def itam waxuñ ke ne ci biir këram ñu fekk ko fa ci biir këram loolu loolu xëtt ndax lislaam dafa am ay xudut loolu sëñ bi santaaniwu ko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 waaye néew na nga gis Baay Faal bu dóor nit kon ñoom damay wax ne ci Sëriñ Tuubaa lañ dof waaye ñu ànd ak seen xel ñu ñu ànd ak seen xel kenn ku leen gën a yow ci àdduna amut te see ñoom ndigal li Sëriñ Daam wax léegi rek xam nañu ndigal ab caabi rek bu ëppee du ubbi bu yeesee du ubbi xame nañ ko noonu kon ñun itam nañ leen ci dimbale ñu gën a góor góor góorgóorlu ci diggale sëriñ bi te xam ne li sëriñ bi santaane bëgg dimbale nit ñi képp a tax te sëriñ bi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 mooy jéem a góorlu fexe ba ni ko sëriñ bu bëggee mu mel noonu sëriñ Cheikh Abdou Latif na léegi waajtaayu mbalem yi ndax loolu mooy li jëkk ci waajtaayu mbalem li liggéeyu mag bi muy première safara di ajjuma ji ja ca topp kon loolu itam ñu ngi ci fàttali di ci soññee ñëpp ne ci ñëpp taxawee nañ ci daa taxawee kenn ku ci yàlla lañ ci daa def ndax xam ngeen ne ren dana gën a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 ñi doon def étude yi te sëriñ bi joxoon leen ci digal defar nañ étude yi war a indi ndox mu wax mu Touba étude yi ne ci biir réseau bi ci biir dëkk yi mu war a dese te xëy na fii ak ay weer wala ñaari weer ñett ca lañ waxoon bu soppiku lépp ren àgg boo àggee it la sëriñ bi waxoon nee woon na bu université bi àggee sama yitte jëpp maa ngi koy jëmbali ci ndoxum Touba kon nag buñ ci àggee na taalibe yëpp takku te xam ne na as Cheikh Mouhamadou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 fànn googu bokk na ci kon màggalu Tuubaa li ci nekk njariñ kenn xamul lu mu toll nguuru Sénégal itam li nga xam ne màggalu tubaa moom ni ñu ko ci gañe mën na ñaar téeméeri milliard ak juróom fukk ci bi ñu ko mujjee xayma te boobu loolu ëpp na ñaari te gi fu mu toll bu déwénee da ko kon nag nañ xam ne màggalu Tuubaa lépp loo xam ne def nañ ko ci rek na xam ne asakee lañ ci war a def ndax mooy genn feet gi nga xam ne du daaneel koom-koom réew mi waaye da koy yëkkati kon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 ndax ni ku dëkk ci biir këram amul fu mu jëm amul fu dëkk amul fu mu làqatu ndox mi fekk ko ba ci biir néegam ba ay lalam yàq ak dundam yàqu koo xam ngeen ne ak tumuranke dikkandoo kon loolu na ci ñëpp gën a bàyyi xel te xam ne lu li yunfiq zu saati min saatihi wa man qudira alayhi risquhu fa li yunfiq ma atahu llah kon xéewal ku ko yàlla defar na nga xam ne bokk na ca la la war ngay dimbale sa mbokku jullit rawat na sa mbokkum taalibe rawat sa mbokkum dëkkoon kon sëriñ bi ci soññe di ko digal ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu